jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ni ñu koy defee saa su ne mbokk yi nag tey dañoo seet si kenn koo xamante ni bayar la ci làmb def na bërki démb rek moo ci mujj ci arène nationale mu teg mise bu am doole dix million ci bëre simple loo xamante ni bu suñu ko gis ci làmb wala bokk bu amee benn la fi muy Jax production tey moom lañ seet si waa wasaare bëgg a waxtaan ak moom ci lépp lu yokk làmb ak kan mooy Jax ak lan moo tax mu am fit gu toll ni jël 10 million dugal ko ci làmb simple Jax maa ngi lay ñu leen di nuyu yéen waa wasaare di leen bëggee di leen sant di leen ñaanal yàlla ci liggéey bi ngeen di def yombul waaye nag euh, di leen ñaanal yàlla bu baax a baax a baax yàlla jàppale leen. ndax euh, liggéeyu làmb dafa compliqué mais nag euh, gis naa ne yéen a ngi teg ay jalons yu baax a baax donc bu leen gënee góorgóorlu rek yàlla dina leen yóbbu ci kanam bu soobee yàlla voilà. Jax kan mooy Jax ak lan moo la poussé ba nga dugg ci làmb. ah Jax mu ngi nii rek sénégalais la comme yow rek <laughs> bu bëgg làmb rek dugg ci làmb heure bi ko yàlla tuddee xam nga lu ne rek dogal borom bi lay tombel man duma koo xam ne damay pratique ay làmb yooyu non loin de là mais nag euh, kii laa amateur laa bëgg naa làmb daan naa ko seetaan ma nekkee xale. bon et puis bi ko yàlla tuggi tuddee rek ñëw na dugg nañ voilà. <laughs> daan faral mbër fan. wooy daan nañ faral ku nekk booy seetaan di nga am ñoo faral donc euh, ñu ngi dëkkoon Dakar donc on était plutôt ak ay waa Fass yooyu quoi ay Mbaye Guèye ay maam góor gi Ndiaye yooyu et man am naa maam boo xam ne aussi bi falang tewee nit ñi temps bu njëkk nga xam ne làmb organisé woon dafa gaaw moom la sama maamu lébu yi jëloon parce man sama côté ay lébu lañ donc moom lañ jëli ji woon mbuur mu yor gaalam di nappi foofu benn maam bu ñuy wax Souley Ndoy moom lañ jëli sama côté yaay mu ñëw Dakar daan Souley Ndoy daan euh, falang voilà defet boobu lañ xam ci falang keneen daanu ko fi. <laughs> ba tax mu nga doon amateur boo xamante ni dugg nga ci làmb. bi nga duggee ci làmb li ñuy gis lu baree bëri da nga wu ci bëre simple bi lan la man amul nga am ci làmb simple. waaw xam nga làmb simple dañuy wax dafa am li ñuy wax naan làmb ah, sport la ak culture. boo nekk culture mooy way mooy cosaan mooy tradition mooy ngemb yi mooy tuus yi mooy yooyu te loolu boo xoolee làmb dëgg dëgg dëgg ci lutte simple la am. lutte avec frappe dañ ko moderniser ay cuissard lañuy sol indi ay fecc yoo xam ne bokkul ci làmb yooyu yëpp quoi. waxuma ne neexul mais tradition bële daal moo gën a man moo ma gën a neex waaw. bëre simple mooy dëgg dëgg tradition. waaw ndax euh, xam nga lutte avec frappe boo ko xoolee ba xool dañ naan suñu cosaan la waaye du suñu cosaan ab tubaab moo ko fi andi tubaab moo fi jëkk organiser bëre dóor ci kaw cinéma toujours ngeen dégg ngay jaañ wax ko fi donc du suñu cosaan suñu cosaan mooy bëre jàppante bu gars yi mool yi suñu mbokk lébi bu ñu saan dem géej ba am xaalis napp jën lekk seen cere baax ñoo ci jafes gi nattante doole séeréer yi tamit wa ilaa noonu bu ñu béyee nawet ba mu jeex jaay seen gerte jaay seen lii xale yi commencé nattante loolu mooy làmb nga dem ci tukulóor yi wa ilaa noonu nga dem ci joolaay ku nekk ak sa spécificité làmb yooyu yëpp sport la boo xam ne dafa allier suñu tradition ak suñu culture booleeg sport bi nga xam ne mooy contact beeg jàppante beeg bëri bi te bon loolu boo xamee ne fu amul dóor xam nga donc violence daanaka amu fa donc loolu yëpp si am solo te da ngay gis façon prise bu nekk boo duggee ci gala de lutte mu am 128 mbër balaa nga faa jógee nga doyal bëri. ca dëgg-dëgg waaw. Jackson ban année nga dugg ci làmb. y' a cinq ans ren mooy cinquième année je crois su ma juumul wax. Hmm. yàggoo ci làmb de. ah si cinq yàgg na yow <laughs> it <laughs> cinq ans. fi def ay deux quatre-vingt-quatorze nga leen dégg wala deux mille mais. ñu def ay quinze vingt cinq ans comme Serigne du Niang ak ñooñu ak ñoom day jaay Tyson ñooñu ñëpp yàgg nañ fi. Hmm. mais nag loolu du ci dara. loolu du ci dara je pense que du ci dara ku ci nekk rek ak li yàlla la yàlla dogal ci yow rek bu heure bi jotee rek nga def ko. man million millions laa jëkk teg ci làmb à Demba Diop bi may jour année bi ma jëkkee ñëw diggu saison la sax ma ñëw rek teg 5 millions boobu xaw ma lu bari ci làmb su ma bëgg a bëgg rek moom ma yóbbaale ma yaakaar ne su ma tegee 5 millions nii ak nale donc ma ñëw teg mu échoué ma ñëwaat 3 mois après xam ma 2 mois après tegaat 3 millions mu échoué waat taxul ma bàyyi. mooy bi ngay doog a dugg si làmb làmb gàttandu la. première année laa la wax. <laughs> boobu dawoo xaddiwoo découragé waaye tamit yàgg ci ten baag fekk la ci. booy liggéey doo découragé yàlla mooy maye mën na naa tëgg mu jox ma ci benn bés bi lu extraordinaire mais du tax ma xam dara lii nit mu ngi jàng ci échec réussite kenn du si jàng dara boo defee dara mu réussir pour yow yaa fi mën yaa gën a fort te fekk doo dara yàlla rek mooy dogal mooy sottil boo échoué ci ngay jàng naan lu tax ma échoué lu tax lii ma def ko doxul commencé calculer. di seet lu tax doxul di xool di noonu ngay jànge on n'apprend que par les échecs loolu la tubaab wax. <laughs> nga dugg ci saison bi sa première saison nga tëgg ñaata journée. xamatuma ko boo may laaj même saison bi ren boo ma laaj ñaata journée laa tëgg sax xaw ma ko man damay tëgg di dem rek noonu lay fonctionner ñu bari daf leen jaaxal nee naa yow lan nga prévoir man leen dara man daal damay tëgg rek teg sama programme di dem yii yàlla mën na ko sottil yii du ko sottil yii antu ñu tëgg ko ma ne da bëgg naa mënuma la wax li may tëgg ren xaw ma ko. nga tëgg yu mel noonu. gagné woo ci. daanaka perte nga gën a jege. perte nga perte ci làmb jooju ñu jékki-jékki gisaat Jax ñëw dem arène nationale teg mise 10 millions. 10 millions du ay caaxaan Jax. waaw loolu ba ma pertee loolu at yi ci topp liggéey naa perte tuma maa ngi liggéey muy ñëw nit ñi di ma gën a xam may ñëw mbir yi mbër yi di ma xam ainsi de suite léeg ma tëgg am léeg ma tëgg ñàkk àdduna noonu la mun loo tëb rek di am même boo xamoon làmb ji yëpp sax munoo amoo certitude que da ngay am. bés bu ne ak la yàlla di jox da nga koy doyloo nit boo dee boo gëmee sa borom danga koy doyloo lu ma la jox nga nangu ko lu ma la xañ tamit nga xam ne yàlla lii la dogal ci yow bés bi mais nag bul tax nga bay bàyyi déedéet adduna du noonu. lu tax 10 millions lu tax 10 millions. waaw ah, daf fi mës a am mosu fi am contexte moo koy xam nga làmbu simple man ni may liggéey context mooy indi mooy indi mise contexte bi boo xoolee ren lan laa démarré kenn dafa mus a démarré loolu. bisimilah làmb 2 mu soo ko gis fan première journée 2 millions laa teg ni ñu daan démarrer làmb ay cinq 500000 ak ay affaires yooyu mais ren bisimilah 2 millions contexte bi la. waaw période bi ñu tombeel moo tax mu demee noonu 2 millions après 2 million cinq après encore 2 millions 5 et cetera et cetera ba 10 millions bi ñëw <laughs> léegi bi ma jógee ci 10 millions lu ma def du 1 million. <laughs> mu ngi noonu. <laughs> mais Jackson mu am loo xamante ne dañ ko seetlu. mooy mooy làmb ji lu ci baree baree baree bari sa combat mbër yu mag yëpp dañ ko dañ leen gis. sa combat bi paase nga tëgg euh, arène national teg 10 millions mennum rëg-rëg lañ fa gisul ci mbër mu mag da leen woo wala dafa am loo si ak ñoom. ah laajal mbër yi ndax Jax mos na woo kenn téléphone nan kaan ñëwul sama mbapat musul am ma woo kenn mbër laa woo nan laan ñëwul sama mbapat musul am bu naree am ma bàyyi la am léegi nag ñoom dañuy liggéey dañuy liggéey. bu ñu gisee lu leen ko jaral ñu ñëw bu ñu gisul leen ko jaral duñ ñëw affaire bi lool kese la. loolu la mais mais mais buñ jékki-jékkee gis comme lamb ji passé association des promoteurs. jékki si ñu gis la ci gise bi ngay jaay te yow journée boo tëgg yaay dem ci gisee bi di jaay. xanaa ñi mel ni man dañoo bari. non non loolu mooy sama rôle man ku nekk ak li nga séddoo ci biir organisation. man bu dee boobu association de promoteurs mat nañu seize ñun donc poste yëpp ku nekk mën na faa ne def li mu war a def. man sama rôle mooy jaay billet organiser foofu parce que foofu dafa sensible xaalis moo fay dugg amateurs yi dañuy ñëw yàkkamti bugg dugg il faut nga nekk koo xam ne yàlla dafa lay may ci calcul mathématique sa xel. lu ñu teg nga xam lan la ñaata ngay delloo et cetera loolu dafa metti yombul du ñëpp mën a jaay billet sinon mën nga fa teg nit mu teg fa ñetti waxtu du jaay sax 500 billets man bu ma defee 2 heures mën naa jaay 3 ou 4 mille hmm. loolu may gu ma yàlla may la ci calcul comprendre nga. moo tax may toog post boobu. maîtriser terrain bi. waaw ma poste boobu kay maîtriser naa ko li may def ci làmb ji tamit organiser naa ko ba ku nekk li mu war a def def ko man soxla ma ne ci biir soxla ne li nga war a def da koy def. sama biir làmb ñoo ngeen jël samay làmb gaal gi ak feneen arène nationale gi ma gis si géew bi gisu leen ma fa ba mu tas même ba ñuy présenté mbëri gisu leen ma loolu moo lay wan ne man doxaluma làmb ji équipe bi moo koy doxal. <laughs> Jackson ñu am lu ñu jaaxal ci arène nationale bi ba tey nga tëgg arène nationale ne presse bi ku dugg day fay cinquante mille lu waral loolu. waaw xam nga presse day liggéey yéen ñëpp ay presse ngeen privé ngeen da ngeen di liggéey pour am xaalis image ngeen di jël publier ko nit ñi di ko xool ngeen di am ay vues di fay ko mais image bi ngeen di jël moomu leen ko ku ko moom du promoteur bi. alors promoteur bi lan la si gagné yéen ngeen ñëw jënd seen caméra jënd seen ay serveur jënd seen ay affaire teg jël yëfu jàmbur dugal ko di ko fayee ko joxu leen ko si dara. loolu injustice la jaaduwul bu doon pays moderne doo leen ko sañ mais fii Afrique lañ nekk lu def lu neex waaye rek mu def ñaan au droit de droit de l'information voilà man leen loolu du dem sama làmb du ma teg sama 10 millions mu nekk presque 13 millions de frais amul parrain amul sponsor amul benn jàppale ma ubbi ko na presse bi ñëw leen jël defaat ko seen ay émission télé defaat ko seen ay serveur vocal serveur euh, euh, YouTube ak yooyu nit ñi di fay ngeen di fayee ko di encaisser télé yi jël seen sponsor dugal ci biir jël samay image man man ma toog di xoole est-ce que loolu jaadu na. est-ce que jarul woon kon avant nga woo presse bi yëpp ñu toog trouver benn terrain d'entente ba bu làmb jaa presse bi kenn ñëpp ñu ngi bëggee ñu ñëw ñu ñëw ma presse bi keroog ku weesul wasaare làmb ak Lac Rose TV gisuñu fa benn presse. soxla soxlawu ma téeméeri nit nit bi déglu li ma wax xam ne sens la mu ñëw contribuer fay dugg kooku moom ma intéressé soxlawu ma téeméeri presse joxal ma conférence de presse pour loolu. def naa benn sortie sur sunu làmb kuy def liggéey ci làmb da ngay lire sunu làmb tous les jours jeudi def naa sortie sunu làmb ñëpp liir nañ ko xam nañ li xew donc ku buggul ku ñëwul da nga buggul ñëw wala buggoo joxe 50 000 francs et moi je trouve que c'était raisonnable joxe 50 000 dugg ñu ñu nii luyee partenariat et puis da ngay am sa événement duñ la si jàppale si dara ci comme euh, di promotion bëgg a ñëwaat sa làmb jël ko amul sens bu fekkoon dañ ñëw serveur yëpp dañu euh, euh, ñu ko xatee site yëpp dañu ñëw. bon Jax léegi sa événement lii de ñun ñëpp dañuy ñëw def ko front page muy daw nit ñi gën ko yëg ci monde bi bu ñëwee ma may leen parce que jàppale nañ ma jëli nga fi may waxee mm-hmm. mais jàppale ma ci dara ñëw sama làmb jël ko exploité waat ko alors ça j'accepte pas. mais réeroo amul ñàkk a waxtaanaam loolu buñ ko waxtaanoon presse bi du dinañ ko nangu. amul réeroo sax ñëpp yëg nañ ko ñi bëgg a fay ñoo ñëw fay jël ko muy ñaari ñaari site ñaari site yooyu bi may def bëri dóor keroog ñoo fa nekkaat ku fa ñëw ma dàq la. télé yi fa ñëw yëpp ñëw nañ fa pour jël bëri dóor ma dàq leen defaluñ ma dara man ñàkkuma fayda moi je suis un intellectuel dama jàng ba ne ar xam naa li may def sama événement sama événement dama koy jël après yóbbu ko BSDA droit d'auteur la ku ma ko gis mu publier ko mandé le problème yóbbu la justice xam naa sama droit donc ku bëgg liggéey ak man dafa am looy def da ngay ñëw bañ a ñaaneew ma la du sa 50 000 yi moom a yóbbu fenn parce naa tëgg tëj kenn fayu ma 50 000 dafa am niveau boo xam ne bu ñu fa eggee il faut nit ñi collaborer. waaw ah. ah, télé yëpp laa dax ñëpp nag ñëpp ñëw nañ fa. gannaaw yaa organiser moom loo bëgg ci sa bis loolu lañ la ciy defal ba tax na am na loo xamante ni làmb dañ ko war a waxtaanee ma jag si li ma jaaxal mooy làmb ay pàq-pàq yi ci nekk ak kii yi ci nekk yi nga xamante ni promoteurs yi buñ tëggee dama perte dama kii sponsor yi ñëwul lan mooy lan moo waral loolu. làmb dafa compliqué li ëpp ci promoteur dañuy tëgg di perte. li ci ëpp laa bu ñu dee fukk neuf yi dañuy perte te pourtant bàyyiwuñu ñu ngi taxalewaat di ñëw di gérer booy tëgg a bëre door jël yi bii booy kenn nangatul jënd bii à la caisse. comme lutte simple lutte simple da ngay teg sa mise lu mu munti toll gars dañuy ñëw fay caisse booy pare sa journée xam nga li nga am kenn du fa ñëw di arranger. bu dee bëri door c'est différent da ngay jël billet yi jox booy ay benn bloc ay ñaari bloc ñu jaay ko. booy yi daanu yëpp 80 pour cent yi du la nangoo fay di wërën wërantaan jaay naa fële biir bi jàdd na fi jàdd na fële nan la làmb di avancé mal honnêteté la te da leen di fay seen cachet ba mu mat wax ji foofu la nag y' a beaucoup de problèmes ci biir làmb surtout bëre door da ngay ñëw tëgg sa ay ay événement ñëw taxaw man làmb jëlee passé am na si benn booy boo xam ne ñu jox la avance nga war a bëri dem naan da ngay MMA Adrien Senghor tànk kenn tànk bërëx loolu normal la te nga jël avance war a bëri dans deux semaines. mbër bu mag bi tamit ñëw ne tànkam dafa rëx xaw ma fu mu rëxe si yan circonstance la y a des choses yoo xam ne normalul boo bëggee taxawal combat tey da ñëw woo benn mbër jox ko avance ne mes la wax kenn ki mu war a bëreel boo ko nee kii kee bu xësee ba tey avance dootul dootul nangu bëre kenn koo ko wax mu daw te lekk na sa xaalis ba pare y a beaucoup de choses CNG waaw dañ leen andi avance yi au bureau du CNG mais mënuñu yóbbu mag bi rek nga mën a yóbbu foofu pour régulariser ñu ndaw yi noon nga ko mën a arranger arranger ba mu mën taxaw làmb dafa laaj raxas liggéeyaat. liggéeyaat daal au fur et à mesure daal surtout làmb dóor làmb dóor dafa bari problème. Hmm, làmb door bi moom problème yi ci nekk bari na ndax promoteur yi mbër yi sax dañ naan promoteur bi dañ lay tëgg nga joxe ay caution wala nga jënd ay billets doog a bëre boo ko deful doo bëre te mbër yi li nekk seen ginnaaw dañoo bari mooy loolu. waaw am na mbër yu am mbooloo am na yu amul mbooloo ñi si ëpp amuñu mbooloo. Hmm. te war nañ bëre am nañu mbooloo. amuñu mbooloo te war nañ bëre parce que mbooloo doo yeewu rek am ko dafa am fooy jaar muy dem di dem ba mu nekk mbooloo bu rëy am na nag ay nit yu exceptionnel yoo xam ne yàlla moo leen may comme ay genre site yooyu yoo xam jóg rek ànd ak ndiiraan mais loolu ay benn sur mille la bariwul donc ñi si amul mbooloo ñoo ëpp te ay sportif lañ ñu ngi entraîné nekk seen kër di kii war a bëre war a di dem mbooloo yi di yokku ñooñu nag bu leen mayul possibilité compétir naka la amee mbooloo mais du sotti te promoteur bi aussi bu fekkee ne amul jàppale boo xoolee léegi Iba Mar Diop nga xool combat yi ñu fiy tëggee kan moo fi am sponsor kan à part Serigne Modou Niang ak quelques Assane Ndiaye gisuma fi keneen. Mm-hmm. wala boo gisee sponsor yi ñuy taf sax nga xam ne du sponsor dara sa mbokk la rek bu am benn restaurant wala benn boutique nga tafal ko plagam rek pour ñu xam ko mm-hmm. mais du sponsor bu lay jox dara te bu jëkkoon sponsor yaa quelques années dañu amoon doole yi daan joxe xaalis bu bëri mais nag malheureusement xaalis boobu yaatuwul dañ ko dañ ko bloqué si ñaar ñetti nit jariñul làmb ñetti nit la jariñ am na période yoo xam ne nga jox ay 500 millions ay 600 millions ay promoteurs pour ñu tëgg ay 5 6 journées ci cette saison bi bu loolu dañ ko yaatal ne léegi xaalis bi yëpp dañ koy teg promoteur bu ñëw tëgg am si temps nga xam ne ñëpp ci jariñu mais dañuy tànn àdduna ak noonu la yëpp tànn la yàlla sax dafa tànn rasulullah sa alayhi wasallam mooy gën gi mu def donc <laughs> on ne kenn mënu ci kaas si loolu da liggéey ci li ngay liggéey rek ba loola yàlla jox nga xam ne loolu la mais làmb dóor dafa laaj assainir ñun dugal nañ benn projet CNG CNG accordé ko ba léegi pour def 15 combats arène nationale waxuñ ci dara te loolu mooy tax nit ñi mën ci génn te loolu lu sérieux la parce que 10 combats yi mënoo ci génn frais yi dafa bari metti comprendre nga li ma la ñun ñu réfléchir xalaat ne buñ dugalee 15 combats 5 combats yi ñu wàññi temps bi booy yi di bëre parce que bëre dafa metti contact dóorante fii au lieu de maximum 15 20 minutes ñu wàññi mu nekk 25 euh, minutes ñu wàññi mu nekk 15 minutes. wala moom mu nekk 10 minutes ñaari 5 minutes xam nga combat bu ne di nga si gagné 15 minutes 10 minutes fële 10 minutes yooyu ngay gagné boo ko jëlee 10 combats ñaatal du 100 minutes voilà 100 minutes yooyu 5 combats yu di minutes 50 minutes la. de combat bi ñaari contact gu 5 la mu jeex au lieu de 20 minutes comprendre nga fi may waxee ñu war a yokk xam nga loolu lu rafet la mais ba léegi defuñ ci dara dañuy wax yu kenn xamul. dañuy avancé ñoom xalaatuñu luy avancé loo làmb ñun ñu xalaat liy avancé loo làmb proposé leen ko duñ ko accepté ñu lay ay gauche jàddal droite demal fii demal fële ñu lan la ñuy wax réuni nañ fa ñetti yoon wax dara génnu ci ñu ne da ngeen di rencontré arbitre ani arbitre depuis boobu ñaari weer ngeen di rencontré ñu arbitre te ñoom ñu waroon fixé rendez-vous ak arbitre nan la ñuy avancé on ne peut pas avancer da ngay xalaat liy avancé loo nit ñi nga def ko wala nit ñi xalaat liy avancé loo làmb ji nga nangul leen ko def ko mais doo toog fi nga toog rek teg say texte rek yow jëloo benn risque dugaloo xaalis dugaloo dara li ñi ñëw andi seen xaalis jox leen andi lépp jox la xool li lay doxal làmb frais yi bari fële sori ak yëpp ñu réfléchir ba ne lii bu ñu yaakaaree bu ñu ko defee dina tane nga mun ko essayer sax mais dara fu ñu jëm. làmb jóge làmb jóge Iba dem arène nationale képp kuy tëggati ci département wu Dakar arène nationale ngay dem noo ko gisee bokk na ci liy defar làmb. Ah, loo bëgg. comme nit ñi sànni nañ xeer ñi nga xam ne <laughs> bëgguñu làmb ak intellectuel yi nga xam ne ay sénégalais ay faux sénégalais pour man jàng tubaab ñëw taxaw naan non làmb ay yëfu dof la ak yëfu ay non c'est pas sérieux kan lañ dàq jàng kuñ dàq jàng man def naa Paris dem naa Amérique architecte décorateur def naa sept ans d'université génn major sama promotion amul kenn ku ma dàq jàng si ñoom président ba ci suuf dégg nga wax ji pour intellectuel yi wax naan làmb ay sànni xeer la baaxul. ay complexe lañu. man sama tradition la dama ko gëm. gënuñu ma xam li may def moo tax ma ñëw investir aussi en tant qu'intellectuel pour jàpp si li ma ci mën man du ma topp si ginnaaw doomu aadama li ma yàlla may ma def lu ma yàlla mayul ma bàyyi c'est mais arène nationale dafa laaj ay mesures yu ma war a àndal yoo xam ne ñooy tax ñi nga xam ne Iba dañ fa daan daaru nga bëgg a yóbbu arène nationale frais yi yokku difficulté yi yokku day gën a metti rek. ku dem du ñëw ku ñëw tamit boo tëggee benn daanu demaat sa yoon il faut moom ay mesures yoo xam ne dañ koy jël yu yoo xam ne dina permettre promoteur bi mu mën si mu mën si génn mooy quinze combats yi ma la ci benn benn la ci sponsor mënoo forcer nit ne da ngay ñëw sponsoriser lamb état moo ñu mënoon dimbali détaxé yooyu ne société bu ñëw boo duggee ci sport bi même pas lamb ah, boo duggee ci sport bi temps dinañ la détaxé temps état mun na def loolu pour la politique sportive mais loolu yëfu état la man dugguma si waxu état. comprendre nga société yi nga xam ne gisuñu seen bopp ci làmb ba pare dem ci so dem ci dem ci télé yi di fayaat foofu pour dugaat ci émission làmb yi te na nga ko jox promoteur nañ xoolaat yëf yi. est-ce que dul li li nga xamante ni yow nga nekk promoteur man ma doon promoteur nga tëgg journée bu mag sponsor bi fay ma temps ma dem ci sponsor boobu ni ko li nga fay Jax dafa bari fay ma moitié bi man ma tëggal la defal la li la Jax doon defal est-ce loolu bokkul ci lu rey ah, waaw li rey làmb bari na loolu am na fi. Hmm. Aziz Ndiaye am na benn année moo ma ko waxal boppam ne ma encaissé na presque un milliard ci sponsoring su ko ëppul combat yu ndaw yi sax da doon may may manager yi ñu koy tëggi ay géejawaay parce que loolu engagement yooyu la jël année bi si topp mu naan bu bu ko signé waatee dafay dafay am lu muy jox yeneen promoteurs yi pour ñu pour ñu élargir pour ñu gën a yaatal malheureusement ba saison bi di tëj am ay promoteurs yu jaar ci suuf dem ci société yi comme li ngay wax mu amoon fukk ñu ne ko fayal benn yàq lépp <laughs> loolu suñu biir la ay nit yoo xam ne la gëmuñu yàlla yaakaar nañ ne bu ñu bu ñu wàññee prix bi tax ñu jël sponsor yi te moo looloo rey làmb ji mais société bi joxe 1 milliard boo ko nee joxeel 10 millions mu jox la 10 millions mais année année li ci des 950 millions fan la jaar pertement làmb la société ba lay des n'est-ce pas. Mm. léegi nag nit ñi bëggee ba defi loolu ñoo ko yàq loo ci mën. kon làmb fi mu toll nii li ci nekk bari na mbër mi mbër yi war nañu xoolaat seen toogaay promoteur yi noonu CNG de lutte bi tamit ñëpp la mbër buy fayee ko fukki dërëm nga yeewu ne ko da ngay fayee ko juróom mais du ko nangu. boo jëlee Balla Gaye jël Modou Lo jël ñoo ñu genre yooyu VIP yi nekk ci kaw ñu ñu mos ba pare 100 million wala cent et quelques millions nga yeewu naan da ngay bëree 30 millions fa la ñuy yemee cachet da ngay nax sa ku ko wax day nax boppam kenn du am fukki dërëm yow ñu naan ñëwal jël dërëm doo ko nangu. nañu fexe ba fukki dërëm yooyu ñu liggéey mu yokk loolu la ñuy wax ku ne da nga bëgg yokk c'est ça waaw waaw damay tëgg lutte avec frappe tëgg naa benn journée Iba Mar waaw ren waaw. mais est-ce grand contre ci lutte avec frappe pare nga pour tëgg ko. lan mooy grand contre petit. comme ni ngay déggee ñu ne Modou Lo boole nañ ko Ama Baldé Balla Gaye Boy Niang Gris Bordeaux ainsi de suite. mais lan mooy làmb ñoom ñoom nekkuñu woon ay xale yu ndaw fu ñu jaar dañ jékki-jékki rek wàcc asamaan. yàlla bu yàlla bi ñuy bi ñuy sàkk dafa jékki-jékki rek ñuy wàcc para ñun par kenn. danañ jur si ay mère suñu yaay jur ñu ñu nekk liir ñu tette ba ñuy màgg bay bay nekk mag alors nekk da nga jaar ci cheminement naturel nekk mbër bu tuuti cent mille wala vingt mille yéeg di yéeg yéeg di yéeg ba tolloog ponk daan ñi daan ñëpp ne ponkal bi mënul ñu jox la c'est logique ñu ne ñu ñu ne dañuy dañuy dañuy tëggal làmb Matar Ba pour delloo ko njukkal ci li mu ñu defal yëpp li mu defal làmb yëpp li mu defal sport yëpp mënul woon doon lu dul jour bu journée bu mel noonu dégg wax ji. Mm-hmm. loolu moo andi loolu mais du kam man dama am kaa dama am relation particulière ak matal Ba déedéet mm-hmm. waaw. doon na koo xamante ne askan bi ñëpp ñoo ko bëgg ñëpp ñoo ko safoo ba pare dem na ba ni promoteur yi xëy na xanaa su ma àndee yéen ñu def porta à dugg ci sponsor yi fi ñu ne xëy na dinañ ñëw te pare na pour def ak yéen loolu. lu mu la wax si côté boobu daf koy def bu ko narul woon du ko du ko wax. Mm-hmm. dëgg yàlla. bu doon sagom sportu Sénégal yëpp ay dox mu ngi siy def li mu mën mais dafa yombul jamono bi ñu tombeel moo jafe li mu ñu dig dina ci taxaw li mu ci mën mais nag du poosam poosu société yi la xëy na moom en tant que ministre bu taxawee ànd ak suñu président Pape Abdou Fall ànd ak ñeneen ànd ak ñeneen président la république jàpp si tamit ci côté beneen xëy na yàlla mën a sottil affaire yi mais moom monsieur Matar Ba ministre de sports dañ koy dindil dañ koy xanal chapeau dañ koy dañ koy sumil mbaxana comme <laughs> macha allah. sama Fatick. bu ñëwee ba fatik foofu la may jàppee nag. Fatick moom wasaare dinañ la góob. loolu mu ñëwee Fatick ñu toj Fatick. barka rasulullah stade bi la ñuy jël pas ay njaay njaay de boobu daa tuuti. région de Fatick la ñuy xa rajaxe toj rajaxe lépp pour Matar Ba man jaral na ma ko. nee nañ dem nañ ba ni moom mooy ministre làmb ji waaye buñ ko amoon jël buñ ko joxoon làmb ji kese kese kese ñun waa làmb ñu jël. ah waaw mooy ministre làmb ji nëbbu ko de nëbbu ko wane na ko keroog. journée bi def na leen carrément ñëw ngeen ci conférence de presse nee na ku ma ne ku ma fonk la wax cinq heures na la fekk sama buntu kër ñu ànd a ja dama fay teel a ñëw te naa fa toog ba mu tas. ñëw avant mbër yi déggoo ma de dama ne li mu wax kay dafa leer li mu wax la def délégation bu mel noonu musul am Ibamar oto yi dañ dugg ba kenn xajatul ci bunt bi ñu dem ubbi ci bunt Blaise Diagne kon daf ko mos a gis Ibamar loolu musul am macha allah mu jàpp ci bu baax nag ci côté bu nekk macha allah gis nga nit ku nekk. ni mu toll rek la bësam di toll Matar dañ koy ñaanal yàlla yàlla di ko yokk di ko yokk di ko yokk di ko yokk ba bés Macky Sall jóge fi moom mu ñëw yor président nekk président ndax moo bëgg li ñuy def kon moom la ñuy ñaanal bés bu fi Macky Sall jóge moom mu nekk président bu ko defee làmb gën a affaire am gën a baax am déet yàlla ko doon. <laughs> jërëjëf yàlla ko doon ministre euh, des sports Matar Ba ñu ngi lay ñaanal. bis yàlla nga gudd fan lool te ànd ak wér yàlla may la kàttan ak wér ba nga yeggaleeg sa sago wolof def ne doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy dañ koy ñaanal gudd fan rek ndax bu guddee fan rek rëy te ñun amuñu lu dul làmb amuñu lu dul làmb bëgguñu lu dul làmb te làmb ku ñu ko jàppale rek ñun nga jàppale ñun jeunesse su làmb kon ñuy jaajëfal bu baax a baax monsieur le ministre Diaks xam naa ne li ñu am ci waxtu jot na loo loo looy tàggatoo. ak ah, leen gërëm di leen di leen encouragé ngeen gën a góor góorlu waar bi dafa metti nañ ci jàpp rek di bay booy bay balaa ngay góob di nga sonn de voilà nañ dem rek di béy rek jàpp ci rek mu soobee yàlla lépp lu war a ñëw dina ñëw ci ëram nit doomu aadama yàkkamti rek a bon yàkkamti baaxul lu war a jot rek dana jot tegal say plan nag teg say programme lu yàlla sottil ren nga xam ne sotti na ren lu sottiwul ren nga dugal ko déwén voilà lu si yàlla na ma def rek dina ko def bu soobee yàlla yàlla yàlla jàppale leen gën a màggal affaire ba mu nekk télé bu mag a mag waaw loolu laa leen di ñaanal ngeen gis ci seen bopp yëkkatukaay ci côté bu nekk mu ànd ak làmb tamit làmb yëkkatiku gën a dëgër gën a baax ñun ñu ci nekk yëpp ñu gis ci suñu bopp loolu la ñuy ñaanal jeunesse su senegal yal na yàlla def fi jàmm. Euh, Jax nga baal ma rek ci ñaari baat bu njëkk bi mooy nan nga gisee wasaare làmb ak ban relation nga am ak waa wasaare làmb. waaw mais relation bi ma am ak wasaare ko yéen yéen man xaw moon soo luy wasaare lam man presque internet duma ko suivre sama doom yi sax dañ ne man dof laa seer laa xaw ma ci dara mais yéen yéen a ko ut togg ko ba mu ñor ba mu ñëw ba ngeen nekk sama partenaire sant yàlla di leen gën a ñaanal rek laa laay def ñu gën a jàppante gën a liggéey gën a yéeneente jàmm di si kanam rawuli bët dina baax de bu soobee yàlla. <laughs> jërë ngeen jëf mbokk yi noonu lañ leen tàggoo nekk na koo xamante ni promoteur la boo xamante ni ku baax la et puis ku ubbil ñëpp buntam Jaks du Jaks wasaare wala benn sit internet Jaks àdduna la daa woote liggéey rek képp kuy liggéey ñu lay ñaan nga ñëw ànd ak moom liggéey ndax seen ndam rek mooy suñu bànneex te buñ sañoon Sénégal ñëpp am ndam li tax ma laaj ko loolu nag ñu ci bari dañoo jàpp ni wasaare làmb ak Jaks am na lu ñu séq waaye liggéey rek la ñu séq liggéey bu rafet mu ubbil ñu ay buntam ñu ni ñu ubbil ko suñuy bunt lépp lu mu nekk rek incha allah rabbi wasaare làmb mu nga ca. wolof daf ne ku bindoo ni tama ñu tëggale ñaari boor mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqaliko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xewu laam jërëjëf sëñ Basiru